bañ am central bu mag boo xam ne murid yi dong koy moom Touba rek koy moom ku dëkk Touba waratoo fay courant ku dëkk Touba waroo fay ndox ku dëkk Touba sax waroo doon di joxe dépense sëñ Bamba mën na lépp sëñ bi boo ko ñaanee yow mii sëñ Touba def loola murid yaa ngi nii rek jo déglu ndigal rek la ñuy def amuñu suñ dara suñ bopp sax moomatuñ ko lépp sëñ Touba la. kàddu yu bokk ci.